di sant sama sëriñ sëriñ Basiru Mbàkke borom dëgg mectar bi di am contentement janoog yéen jour nee leen mbégte bi nag moo di leen indil li gën a fës xibaaru làmb ci noonu damay nuyu Mbay Babacar bi ma fekk woon di daal àndandoo leen li gën a fës mbay nuyu naa la jërëjëf ajaratu Ndey Mbàkke Diouf baa ngi lay ziar di la ñaanal jàmm ak salaam di bég ci yow di am bégte heure bu ma dendee ak yow fas yéene jukkil mbokk internet yi li nga xamante ne bii moo gën a fës ci li nga xam ne moom mooy journal yi bind ci wàllu làmb wante ñu ngi jaajëfal suñu mbokk internet yëpp yi nga xamante ni bi ñu ñuy toog ci Leewtoo TV mais tey wax naa la ko sànq sa greffage bu baax na macha allah tey nga def frisé nga def. frisé la frisé la ah, frisé nga laal. maam Diarra Kébé moo génn foofu ah borom Diarra Fashion. yàlla jaamam yàgg yàlla jaamam yàgg borom tur bu neexaw soxna jaara mu ngi noona ah. revue bi dañ cee ànd suñu sponsor numéro comme ni ma koy waxee du ma ci taay mu ko ah. ndax li ñu indil Mbaye Babacar mm-hmm. dañu ñu pat Jador daal ñu indi ataaya Jador kenn du Aziz Aly boroom borom Jador ah ku ci topp mbay ki ci topp mooy Eau Kayar ndox mi nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp moom la ñu taamu ndax ferñeent ya ca nekk ak euh, neexaay ba ca nekk boo koy naan da ngay sentir ne yaa ngi naan eau nature eau ndox ma nga xamante ne bii macha allah Sénégal yépp a koy wër te wax naa leen ko dafa manqué ci dëkk bi nag waa Kayar yokk leen seen loxo ndax ndox mi Sénégal yaa ngi koy wër. mu ngi noonu ñun ñaa ñoo ci mën foofu dinañ ko utiliser tey jii mercredi 2 juin 2021 journal suñu suñu làmb ba mu xëyee ci xët mu njëkk suñu papa Gaston Mbengue defati na. waaye gas. Gaston donc king de l'arène. defati na kenn du moom. ñaari revanche de reet yi nga xam te ne àdduna wër nga këpp ñëpp moom la ñu doon xaar di ko laam-laamee nekk ci gémmiñu axlu làmb lépp. Eumeu Sène Balla Gaye numéro 2 ñu ne dite waay daa ci taxaw beneen combat. muy Bombardier ak Eumeu Sène waat ay Gaston mbay day père gas xam nga li tax ñu tuddee ko le Don de l'arène tur boobu noonu mën nañ wax ne père euh, Gaston mérité na ko wax dëgg fa yàlla ndax barki démb ne woon naa dafa xuuf paa bi mu toll nii moom xamatuma a tuddee ma dafa xuuf paa ñopporti paa xaw ma lan ak lan daal mais père Gaston daal a ngi noonu mais yàlla na jàmmam yàgg mu taxawal combat bi combat yu neex nag combat yu rëy combat yi nga xamante ne bii amateurs yi ñu ngi koy bàyyi yeneen ñaari combat Euh, Leewtoo point net xëy bind ci nee na Père Gaston taxawal na ñaari revanche yi nga xamante ne bii ñu bëri ñu ngi ko doon gént waaye ñu bëri ñu ngi ko doon xaar muy diggante Eumeu Sène Balla Gaye waaye seen Eumeu Sène Bombardier waaye suñu làmb moom tamit bind na ci suñu làmb la mu xam ne mooy dafa ñëw àndal ñu première réaction ki nga xamante ne bii moom mooy Bombardier Bombardier waxati na borom Bourg-Géej nee na digganteem. ak Eumeu komba combat boobu la gënoon bëgg ci carrière am fi mu nii ndax bul fàtte ne Eumeu Sène moom fu xarti bi ci loxo yóbbu ko Pikine mu nekk lu ko metti trop nee na nag combat bii du bokk ak combat bu njëkk ba ndax ko combat bu njëkk ba dafa gaawoon trop ba li mu préparé woon yëpp jotu ko war a def mais combat bii na incha allah du bokk ak li nga xamante ne bii moom mooy combat bu njëkk ba wante Eumeu Sène nee na ko am nga combat bu metti am nga combat ba nga xamante ne bii mbër mi ngay dajal su ma ne arbitre bu naree suuf la may dellu gannaaw sama reliquat na nga ko yëkkati jox la ko du ma dellu gannaaw benn yoon te bu suuflee doo puus doo paas dinaa yëg ci sa kaw daanaat la jëlaat ndam li yóbbuwaat ko Pikine wante Balla Gaye 2 tamit pare la toll ku nekk xam na ne ma nga INSEP di waajal combat ak ki nga xamante ne bii mooy bombardier fa la toll ñu def ko appel vidéo mu ne moom. kontaan na trop ci Gaston moom mi nga xamante ne bii moo taxawal yile combat wante nee na combat digganteem ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène dinañ ci gis lu bees tàq la nga xam ne ci combat boobu kese lañ koy gis. mu mel ni Balla Gaye de ci boobu moom mujjee xuuf paax. Balla Gaye mu ngi ci ñeenti contrat. ñeent waaw mu ngi ci ñeenti contrat. ñeenti avance yu duul. ñeenti avance yu diis. wala day la bien sûr dañuy dem monsieur Paris waxtaan ak moom daal di koy jëli ndax lim jël moom fa mu compal ñu ci moo ñu gën a xam te noonu nag ginnaaw ba ko Cissé daal di génn démb wax ci combat franc ak Tyson numéro 2 ki nga xam te ne mooy Boy Thiam ñëwaat na ci am la waa Vox Arena daal di koy taxawal nee na kii di franc su bëggee combat bi gaaw te neex na rapproché jege ki nga xam te ne nii mooy adversaire am di Tyson numéro 2 Tyson numéro 2 bu bëggee combat bi neex na jege woon doo maanaam combat daal ci xeex daal la combat bi di di jeexee a Babacar. borom xam-xama wax loolu booy Thiam mooy entraîneur école de lutte Lane Sané moom journal suñu làmb sekk na ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu ci diggante Franc ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Tyson 2 nee na Tyson 2 mbër la mën a xamante ne bii macha allah dafa mën a bëre mën a xeex mais Franc mbër la ma nga xam ne bu jàppee du bàyyi. te bu jàppee def li nga xamante ne bii moom mooy euh, différence wante ñëwaat na ci Tyson 2 nee na Tyson mu ngi ci dynamique bu baax ci victoire la jóge digganteem ak Gora Sock bu parcelle war a dajawaat ak Franc dafa naa mbër parcelle mi ngi noonu nee ci combat comme victoire la jógee digganteem ak Gora Sock bu parcelle ba tax na dynamique bi mu nekk dina ko may courage bu baax a baax a baax mu mën a génn ci combat am digganteem ak Franc loolu dina leer génn parcelle am fa ndam duggaat parcelle di dajeeg franc mi nga xam te ni ngembam musul laal suuf li ci kanam royu la bët mhm. ndax la neuf yàggatul ca nag Bira Sène le président du CNG moom bañ ko tabbee ba léegi la mu xëy nag di wax nee na diriger CNG nekkul lu yomb Mbaye Babacar nekkul lu yomb ndax moo jiitee li nga xamante ne bii mooy lu làmb ci diwaanu Sénégal làmb ku ne xam na ne ci coow lay commencé wante coow lay jeexee mi ngi noonu léppoon coow la nee na nag diriger CNG suñu làmb dafa ñëw sekk ak moom waxtaan ci drapeau du chef de bi amoon fële nga xamante ne bii moom mooy euh, Kaolack Ndangaan ban koy laajee euh, sa première réaction après euh, drapeau chef de bi moom nee na mu ngi sant président de la république mi ngi sant ki nga xamante ne bii mooy ministre des sports ndax. taxawaay bi ñu am ci drapeau bi am na solo ndax amuñu benn jafe-jafe ci wàllu transport hébergement ak li nga xamante ne bii moom mooy euh, lépp lu jëm ci wàllu euh, organisation bi nee na amuñu ci benn problème mais nee na bëgg-bëggam drapo du chef de l'État bi di ñëw mu yóbbu ko Sédhiou Kolda mu yóbbu ko Sédhiou Kédougou wala Matam ñetti régions yi bëgg na kenn organiser ci li nga xamante ne bii mooy drapeau du chef de l'État uh-huh. mu ngi noonu loolu kàddu yu Bira la maa ngi ko toon sax ci biir ci enceinte bi naan koo président ñi fekk si leen dóor leen loo ci xam mais ak fair play vraiment mu nekk nit ku baax ñu koy nuyu di ko ñaanal jàmm ju baax. doxal nekk nit ku ëmb nekk nit ku lewet. président Bira Sène ko ñaanal liñ ko dénk rek mu génn ci ak jàmm ak salaama ah. doxal ko comme ni mu ko bëggee ba noonu. Mhm. beneen combat bi am la 5 juin bii di ñëw diggante Aboy ak fils de Zallo. Mbaye Babacar samedi la ka ko tëgg nag di Ama Events fa mu ko yóbbu mooy Ngalandou Diouf Mbaye Babacar. Boubacar Niang le promoteur bi tudd moo jiite Ama Events moom ma nga jëm Rufisque stade Ngalandou Diouf fa la fas yéenee tax tëggee boobu combat di ñaari xale yi nga xamante ni bii nag ay espoir yu làmb lañu muy euh, aba abooy ak ki nga xamante ne bii mooy fiis de Jean di combat bu neex ñu nar a gis combat ba nga xamante ne bii. combat bi dana am xeex waaye dana am bëre dana amee foofu ca Rufisque kon waa Rufisque am nañ combat bu neex nan xaar làmb foofu ci stade Ngalandou Diouf te noonu nag ginnaaw ba Bira Sène daal di génn fësal li nga xam te ne mooy li nekk ci mbuxam nekk mbébétam kii di Ibou Ndiaye Obali moom mi toj lutte simple yëpp la muy xam ne ci journal nag mooy li mu bëgg mooy fi yéegi ni teg tegoon tànkam mbay mu ñëw daal di fay tegaat tànkam moom moomu di Obali xale bi dëkk fële ci Diofior dugg ci làmb 2017 nekk xale ba nga xamante ne bii suñu làmp seet na tey ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu mu wax ay ambition wax ay jaar-jaaram nee na li mu jël ci ay drapo kenn xamul ni mu toll mënu koo lim bi ko journal bi laajee li nga jël ci ay drapo loolu la tontu wante nekk mbër ma nga xamante ne bii tamit fi te yëkk ni tegoon tànkam ci wàllu bëre dóor arène bi nee na foofu la bëgg a tegaat tànkam moom mi nga xamante ne bii moom mooy Ibou Ndiaye Obali dëkk fële ca Diofior journal bi nee na mbër la ma nga xam ne war nañ ko bàyyi xel ndax mi ngi ci yoon. ba léegi nag drapeau du chef de l'État la ñuy desandi vingt e édition ba préparation. hébergement restauration. colère noire des lutteurs de Dakar ginnaaw bañ meree ba fut problème yi amoon yëpp ku ci nekk daal di ngay xëy fësal say kàddu ci biir journal bi Mbaye Babacar. ñu mën cee jàpp ki nga xam ne mooy Zambala ak Aada Boy ñoom ñaar ku jën nekk wanee na meram ci journal bi Zambala nee na Dakar bi ñuy dem Kaolack di jongante ci drapeau du chef de l'État dañoo bokkoon ci équipe favori yi dañoo bokkoon ci favori yi par équipe euh, équipe bi nga xamante ne bii bu ñu demee mën nañoo jël drapeau bi mais nee na dem nañ ba dellu waat wante andiwuñu benn médaille mu nekk la nga xamante ne bii lu ko metti trop wante ñëwaat na ci dispositif yi nga xamante ne bii yooyu la ñu nekkee woon tamit nee na ca commencement ba lay tàmbalee préparation bi mais nekkee fii ci Dakar. Euh, fi ñu leen defoon dispositif yi nekkoon dara dara dara baaxu ci ki nga xamante ne bii moom mooy booy Bawol moom tamit andi na ay kàddu dëggam ci journal bi nee na drapeau du chef de l'État moom abanta a faga ak gasi yi c'est terminé c'est moom nee na jeexal na ci takk takk takk takk dootu ci ñëwaat ndax li mu jëlee drapeau de l'État bii passé dëgg yàlla neexu ko te mbetteel dëgg dëgg dëgg la ci jële looloo tax mu wax ci journal bi ne drapeau du chef de l'État na ci. mu mel ni mbër ya jóge woon fee ca Kaolack da dañoo ñëw ak mer ba fottu même Tony Junior xale bi daanoon général Malika keroog mm-hmm. arène nationale na di wax ay kàddoom nee na moom pare na ci moom tamit mm-hmm. drapeau du chef de l'État moom merci rek jërëjëf dootu ci demati waaye nag li am ba des mooy lépp may Babacar waxtaanee la ah, ndax nee na ba njëkk si yëgee Kaolack ñu ngi doon wër wëraat fu ñuy nekk amuñu woon sax fa la ñuy nekk ñoom ñooñu. loolu équipe bu toll nii équipe bu Dakar équipe bu Dakar. équipe bu oh. uh-huh. lépp dinañ ci waxtaan ndax drapeau chef d'État bii di ñëw dina ame waaye ku ci dem rek na nga ci demee condition boo xam te mooy moo lay leer naañ ni mu arrangé la arrangé ñëpp ba buñ dellu see kenn du ci am naqar ca noonu six victoire d'affilée kii di Malal Niani numéro 2 nag Mbaye Babacar mu ngi ci dynamique de victoire bu ama am solo Malal Niani moo def loolu daan na ki nga xamante ne bii mooy woy susu daan na Uchika bu Malika daal na abata bu bawol booloo daan na yaaxadi bu ngunjaan daal na déranger bu caaroy suñu làmb nee na xale bi mët naa bàyyi xel ndax mi ngi ci yoon te téye ko du yomb amaat promoteur yi nañ ko bàyyi xel wutal ko combat moom malam ñaane numéro 2 di xale ba xam ne macha allah dafa mën a bëre mën a xeex. mooy noonu nag record lañ jëm fan ñuy jeexale ci xibaaru làmb lam ci xam ne nag Tapha Tine Boy Niang numéro 2 en direct sur la Sen TV Pape Thialé Seye nag boobu mu ngi lancé li nga xam des ambitions des amateurs maanaam lamb ñi nga xam ne ñëpp moom lañ doon xaar cëppaandaw bi di am le 8 août incha allah Mbaye Babacar. combat boobu war a am le 8 août wax nga ko diggante Tapha Tine ak Boy Niang sax ñu fa yéene jàkkaarloo fële ca Sen TV def li nga xamante ne bii moom mooy bataille psychologique parce que lamb euh, ci wax lay commencé mais jëf moo koy jeexal ñu fas yéene jàkkaarloo nag ku si nekk wax lan nga na ah nan nga war a jëflante. ak sa morom incha allah bu ci yàlla àndee le 8 août ca arène nationale loolu samedi lay am fële ca Sen TV wante Pape Thialis Faye tamit dina fa yëkkati ay kàddu wax naka lay préparé combat bi fan la toll ci promotion yi waaye PPV bi tamit naka la ko nara a doxalee bu amateur yi nga xamante ne bii ñi ngi ci réew mi wala ñi ngi bitim réew te mënuñoo ñëw stade mën a seetaan combat bi ci anam bi ñu ko bëggee. bu dee ba léegi jour boobu lancement wu combat bi lay nekk face to face it dina am ultérieurement dinañ leen di jox date yi kontaan naa ci yow loolu Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru laam lan ngay tàggatoowee xanaa jaajafal la jaajëfal bu baax a baax équipe technique bu Leewtoo TV yëpp ñaanal leen jàmm di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène incha allah jërë ngeen jëf di leen ñaanal jàmm ju baax a baax te di ko sàq ci yéen noonu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb balaa may tëdd damay sant di gërëm sama équipe technique bi laal kontaan naa ci yow trop Mansour Fall naa ci yow lool lool lool di leen ñaanal jàmm ju baree bari noonu laay def rek ne leen ëllëg incha allah ci Leewtoo TV jaajëf. salaamaaleykum gars yi ñu nuyu monde làmb ah képp kuy dund ñu ngi lay woo. booy ñaar tafaatin seen fees su fees.